Desa ñu ne leen tout droit fii ci Ndangane Sambou te samedi le 15 octobre 2022 arbitre wa ngi suñu kanam La bin pati ak El Hadj bu Papa Man La min sen elasen elas El Hadj moo ñëwoon gannaaw El Hadj nako. na ko takk na ko Lamine kor na ko ci ginnaaw Lamine Petit Selel daan na ko laa la la laa Kamu kampung apa ini, Nono? rakk Salama la bàyyi noonu